Mor Gassama ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. fàttali ni yow économiste nga nekk nga itam jàngalekat gëstukat ca université Cheikh Anta bu Dakar. Mhm. projet de loi finance atum deux mille vingt deux daan nañ koy examiner adopté ko ci conseil des ministres bi amoon àllarba juróom-benn fan ci weeru octobre atum deux mille vingt et un njëg la nag ñu daal di koy arrêté ci lu ëpp. cinq mille cent cinquante milliards de francs CFA maanaam daal daanaka double budget bi la ci fukki at naka nga mën a expliquer yokkute googee Mor Gassama euh, waaw jërëjëf loolu concerne nañ ko démb bi ñu lire le communiqué du conseil des ministres mhm. euh, donc projet de donc bi adopté budget pour deux mille vingt deux bi jógee na donc ci euh, budget bi jógee na ci quatre mille cinq cent quatre neuf milliards pour budget bi ñu nekk ñu jóge exécuté mhm. continuer jëm Euh, cinq mille cent cinquante milliards pour hmm. deux mille vingt deux maanaam at biñ jëm biñ biñ jëm. Hmm. waaw loolu nag boo ko gisee maanaam budget bi yokk na ci daanaka lu tollook euh, cinq cent soixante et un milliards maanaam juróomi téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak benn. Hmm. loolu mën nañ jàpp ne euh, performance la ci ci ci ci ci au niveau des recettes de l'État voilà maintenant comme gisagoo nag budget détaillé bi pour xam exactement lu ci nekk fu mu jógee. après pour nga mën a mën a xóotal waxtaan bi foofu du xaw a yomb tuuti. Mhm. prévision budgétaire bi ñu daal di koy sukkandiku ci ay performance yi nga xamante ni ñu ngi ko réaliser jëmale ko ci mobilisation ay recettes. Euh, waaw ñu ngi koy mobiliser euh, réaliser jëmale ko ci côté boobu. Mhm. Euh, léegi nag recettes yooyu noonu ngay wax noonu. Mhm. il faudrait effectivement. parce que d'habitude recettes yi day nekk toujours les entreprises de fay impôt donc sur les entreprises les sociétés nga impôt sur donc les les les revenus mhm. voilà ak yeneen type de euh, revenus recettes yoo xamante ni da koy am mhm. waaw boo lu mel ne licence euh, euh, par exemple téléphone nga wala da ci am dara man et cetera yooyu yëpp nag moo man la loolu am solo la par contre il faut vraiment mhm. document bi nga am ko à pour mën mën a ko jàngat jàngat bu gën a xóot daal Euh, recettes yooyu nag soo paree aussi da ngay jàpp ne am na aussi à côté li ñu ay dépenses parce que recettes yooyu tey boo ko dé boo ko rek jàpp ne mën a couvrir dépense. Mm-hmm. boobu waaw erreur bi sur loolu ndax euh, il faut moo tax bu bu jaar ba demee ba jaar assemblée nationale dañ ci a xam dara parce que boo xoolee daaw. Mm-hmm. suñu euh, budget bi ñu ngi ko établir woon ci quatre mille. quatre mille wala cinq cent quatre neuf milliards. Mm-hmm. mais da ngay gis ne dépenses yi euh, loolu moo doon dépenses yi mais recettes yi couvrir doon loolu lépp. Mm-hmm. recettes yi daanaka couvrir rek moo euh, sept trois mille sept cent et quelque donc du coup Sénégal daaw amoon na presque déficit budgétaire boo xamante bi tourner autour de mille trois cent soixante trois milliards. Mm-hmm. voilà donc euh, yooyu yëpp moo tax faw après nga dem daal ba ba ba ba am budget détaillé bi. Mhm. donte ah. budget bi yokk na moo xam mhm. sama dañoo nemmeeku ni pauvreté di ndóol mi ngay wéy di a bari suñu réew la moo waral loolee. Euh, waaw xam nga budget moom boo ko amee tamit il faut après nga xalaat ci ni nga koy utiliser. waaw parce que am budget ak ni nga ko bu bu bu baax bu efficace ba tey wute na. voilà donc moo tax boo yoree budget da ngay xool danga koy jàngat xool ci budget boobu noonu ñaata lan ci lan ci utiliser pour ay dépenses fonctionnement maanaam ne nguur gi euh, ñaata lañ ci utiliser pour investissement maanaam pour tabax ay ay ay infrastructure defar ci ay auto ay ay ay ay ay ay tabax ci ay l'hôpital ay l'école ak yeneen ak yeneen mm-hmm. voilà te nag bu nente ne budget bi nga xamante bii mooy permis moo lay tax nga mën a combattre la pauvreté vraiment mooy budget bi nga xamante ni bii Euh, loolu lay am daal maanaam day day lutter contre la pauvreté. Mhm. voilà maanaam day day da ngay da da ngay tabax yu bari mais bu leen tere rek pour dépense la lekk kese ak naan. daanaka du jëme réew mi fu mhm. euh, est-ce que budget bi mën na saafara jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi am nañu ko. Hmm? budget bi. waaw est-ce que mën na saafara jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais am nañu ko. budget bi moom daanaka boo ko double na triplé sax mënul saafara jàng eh, sax lay sénégalais am. Mhm. Euh, léegi moo tax état en fonction de li nga xamante ni mooy ay dépenses am mu war a effectuer rek ci lay jéem a kale budget bi voilà léegi te dépenses yooyu sax daanaka souvent recettes yi muy couvrir. du mhm. du du ko permettre mu mën ko mu mën a defar kii euh, def dépense kii mën a ko recettes yi muy am du mu ko mën a permettre mu couvrir dépenses yëpp. Mhm. Euh, dans ce cas day am déficit boo xamante bi a uti ci marché bi. Mhm. boo xoolee budget daaw bi quatre mille cinq cent quatre neuf milliards yooyu noonu ñu waxoon mhm. daanaka euh, manqué woon na mille trois cent soixante trois maanaam junni ak ñetti téeméer juróom-benn fukk milliards ñoo ci manqué woon. Mhm. voilà donc ça veut dire que euh, déjà budget dépense yi ngay annoncé sax li am ci RSE mën na ko couvrir. voilà mais en même temps problème yi nañu am. boo ko bëggee xeex dëgg-dëgg da ngay xeex ndóol bi. Mm-hmm. waaw te xeex ndoor bi weesuut nga li nit ñi di jëfandikoo nga jàppal leen ci ñu ñu ñu ñu ñu mën ko am am di lekk bu baax eh, di mën a eh, faju buñ feebaree mën a am dëkkuwaay mm-hmm. waaye aussi eh, mën a am jànguwaay yu baax mm-hmm. waaw loolu daal mooy tax nga jóge ci état bu ndool mën a dem ci développement. ab projection ci wàllu PIB cinq pour cent est-ce que jàpp nga ni uti jumtuwaay yi ñi ngi fiir ngir mën a atteindre objectif boobee donte nag euh, réalité économique bi euh, nga xamante ni crise sanitaire moo ñu ko daal di imposer am na fi lu ci mel ni vaccin ak yeneen ak yeneen. Euh, waaw augmentation PIB bi de cinq pour cent kooku moom daan lépp projection la rek. xam nga tant que ñëwoo ba an bi jeex munoo munoo xam ndax am na am amut. Mhm. moo tax sax d'ailleurs dëkk yu yi bu fu même Sénégal sax rek faral def aussi. Mhm. daanaka ñetti weer yu wala ñaari weer yu ñu génneel augmentation donc kii euh, dëkk maanaam li dañuy liggéey ci dëkk bi. Mhm. ne la temps la ñun kat doon yaakaar lii moo am nga gis ne li nga doon yaakaar am nga lu ko ëpp wala am nga lu ko nga ajusté ba année bi jeex. nga ne kon nag la ma projet prévoir am na wala am na lu ko ëpp wala ko yées mais comme ay projection la il faut muy continuer nga pour nga koy exécuter pour di mën mën di am donc ci gàttal euh, prévision yu optimiste la. Mhm. jàpp na ne relance am na daana daanaka réew mi commencé na suq suqalikuwaat tuuti. Mm-hmm. ndax ci projection de croissance sax ñi ngi jàpp ne war nañ mën a enregistrer euh, cinq virgule trois pour cent ci ren bi et que déwén jàpp nañu war na mën a dem sax bu huit pour cent mhm. léegi nag comme projection la comme niñ ko waxee rek da ngay xaar ba mbir mi sotti nga xool ba xam économie mondiale daal dooraat loolee la koy misaal moo di tension bi am ci marché hydrocarbure mën na andil ay jafe-jafe situation yenn réew yi ñuy duppee émergent lu ci mel ni Sénégal nga xamante ni doon guñu ay producteurs euh, waaw loolu moom daanaka bokk na ci li ñuy faral di seetlu lu bari. parce hmm. que boo xamante ni bii euh, économie mondiale commencé na relancer waat euh, jënd beeg euh, njaay mi gën a gën a gën a gën a a am solo. Hmm. da ngay ne li ñu utiliser ci hydrocarbures bi dafay bari. Hmm. su boobaa day indi tension prix yi day gën a yokk. bu dente ne day parce que day li ñuy soxla day gën a bëri demande bi day gën a bëri par rapport ak offre maanaam bi ñuy jaay ci marché bi. pour bañ affaire bi yokk wala yokk bi demee noonu il faut que pays producteur de pétrole yi nga xam ne ñoom waa OPEP euh, ñu yokk dañuy produire mais bu demee mu noonu nag ñu ngi day yokk te bu yokk tamit day gën a diis. ci hmm. réew yi nga xamante ni day jënd pétrole. donc diisaay boobu euh, day feeñ ci xaalis bi ñuy génnee pour di jënd pétrole di ko indi ci dëkk bi. Hmm. voilà léegi bu dante ne rawatina nag yaa ngi jëm ci ay élection nguur gi souvent du bëgg même bu pare personnel bi ñuy jëndee bitim réew yokkee du bëgg ci réew mi ci biir réew mu yokk ko donc dans ce cas daf koy faral di subventionné ba élection yi jàll su boobaa aussi xaalis la bëri boo xamante ni bii mhm. euh, bu mënoon dem ci feneen la nga di ko subventionné ci ay prix mhm. mais yooyu si même bu ko réew defee tamit bu élection jàllale aussitôt day jëm appliqué li ñuy wax la réalité des prix ndax nag mënoo jëndee cher bëgg di jaay lu voilà na naka da nga ciy def frais yëpp mën koo jaay prix bu normal prix boobu sax moom la wax ne lépp lu ci yokk bokk ci répercuté sant dëgg mooy consommateur final. Mhm. waaw souvent noonu lay demee. moo ne de Sénégal ñaareelu puissance économique ci union économique et monétaire ouest africaine du UEMOA daanaka ñu daal di koy crédité ci dix virgule quatre vingt six pour cent ci marché régional bi ci wàllu titre public ak recettes yooyu est ce que mën nañoo dimbali ngir ñu fay suñuy bor. recette bi euh, mën la permettre nga avancer ci say ay projet maanaam bu am nga yenn projet yi mën nga ko cee mën nga cee mën nga ko financer euh, voilà mais bor moom souvent li lépp nga koy fay mooy sa recette yi nga am ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa budget d'ailleurs sax ba xoolee recette yi ñu am ci budget bi souvent daf ci am partie boo xam ne pour rembourser de la pour remboursement de mm-hmm. parce que xaalis la boo xamante bi donc waroon a génne pour tabax di ay mbir ay tali ay ay ay ay pont ki ay école ak l'hôpital ak yu nekk bu leente ne da nga koo leb bitim réew pour tabax ko tamit donc da nga koy fay nànk nank xëy na da nga ko leb pour fay ko ci fukki at wala ci juróomi at wala ci juróom-ñaari at juróom-ñetti mhm. da nga naan chaque année mën naa ci def temps donc bor bu nekk nga xool li nga engagement ba mu dugal ci at bi. Hmm. après nga nga ko ci budget bi teg ko na de. waaw plus le service de la dette. kooku moom donc prévoir déjà ci njiitu réew mi daal di nay bu baax a baax ci euh, notation financière ci wàllu monnaie locale nguur gu Sénégal bi nga xamante ni nag ñoo ko def moo di cabinet Bloomfield Investment. notation boobee bàyyi ko ci cabinet bu Bloomfield daanaka day fësal solidité koom-koomu Sénégal ak résilience bu dëgër bi nga xamante ne ak résilience bu dëgër bi nga xamante ne am na ko ci éco extérieur ban jàngat nga am ci loolee Mor Gassama. Euh, waaw gis na ne loolu moom c'est une bonne nouvelle pour euh, pour pour vraiment euh, les autorités parce que déjà ak économie les opérations économiques de manière générale. Mhm. parce que day joxe une bonne image du pays maanaam day wane naatal bu rafet bu Sénégal. wane ne eh, dëkk bi mbir yaa ngi dox waaye aussi autorités yi li ñuy yore baax na. Mhm. su a bu lente ne soxla nañ xaalis xaalis bitim réew pour mën a financer projet dafay gën a yomb. Mhm. waaw mais ñu rappeler rek Sénégal amuñ problème image côté boobu parce que à chaque fois ñu soxla xaalis pour financer yenn grand projet yi au niveau donc de ce pays là. Mhm. pour pour buñ bëggee génn au niveau du marché souvent facilement dañ koy am. léeg sax da nga soxla benn montant ci ñaar wala ñett fan wala une semaine nga am ñaar ba ñett yoon. la nga soxla woon mais yow li nga si li nga bëgg nga jël mais doo jël li la proposé yëpp loolu lépp pour montrer que la science du Sénégal reste toujours crédible. Mor Gassama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Ah, waaw jërëjëf. fàttali ne nga jàngalekat gëstukat ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar. merci au revoir jërëjëf Mor jërëjëf.